Seyda maam Seyda Seydi Laay maa diine ñoo sunu yoon nen dem naa laay laay laay laay mag ñaa ngi jooy weet mag ñaa ngi jooy weet ndaw ñaa ngi jooy weet alaay mag ñaa ngi jooy weet ndaw ñaar ñuy jooy wéer maam ran weetal nga dunya lay lay lay ay bun rawala ay ay ay Abdoulaay ay bundo walaay ay ay ay yaa leeral yoon we ay ay ay yaa leeral yoon we laay laay asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nu ngi muslu ci seytaane di julli ci yonent boobu nga xam ne lu yàlla bind moo ci gën moo gën ña jiitu woon gën ña topp ca ñooña gën ñu ñun ñii te ñiy bëgg ñëw moo leen gën te yowmal xiyaam itam moo gën ñépp muy seydinaa limaamu alayhi salaatu wassalaam di nuyu xab la kulla shayin suñu yaakaar tey ak ëllëg àdduna ak alaaxira di bàyyi Abdoulaye Thiaw yàlla na fi yàgg te wér di jël nuyoo boobu nag di ko teg ci suñu baay bu tedd bii ci loxoom mu joteel ñu ko magam ju tedd jooju walla boog magam yu tedd yooyu ba mu roogalaat ci njaboot gi yépp ba wàcc ci saaxaaba yi yépp di jéggaluwaat ba tey suñu kàddu yi ñuy yëkki ci kanamam ndax man damay wax ne li Isaa wax rek lay dëggal ñoom bu ñu teewee ñun amuñu kàddu tey bu ñëwoon tey waxtaan waxtaan wi yépp ba pare ñaanal ñu ñu ànd ak moom dem ci xol bu sedd guy ci xol bu sedd guy ndax defe naa cantuk Baye Seydi Thiaw bi ñu koy teg ci loxoom boobu yëgul li xew moom ñu ne ma man maay def cant gi ñu dem ba ci bésu cant gi mu ñëw ma yëkki cant gi teg ci loxoom mu wax ba sonn ne ma déet ma ko defar rek waaju ma ma ni defar rek man duma def dara duma wax kon defe naa ne tey jii bu ñëwoon def lii nun dañuy toog ci wetam jàppale ko gunge ko ndax ay saxaabaam rek lan bu ñu teewee ñoom ñun amuñu kàddu ci seen kanam wax naa ko sànq si ngoon ci at àjjuma ji imaama nga ne la du dina ma seede ma wax ak benn saaba nekk nun kër Baay Laay ñun ñépp ay saxaaba lan jenn jëwriñ moo fi nekk ak ay rakkam ñooñu fu ñu teew nun amuñu fa kàddu lenn nag dinañ ko def doon ay saxaaba ci seen biir waaye du nu du nu leen bàyyi mukk ngeen gën noo gëm Seydina Limaamu alayhi salaam lu nu doon ay saxaaba ci seen biir doo leen ñu gën a gëm mukk Seydina Limaam kon nag ñoom bu ñu teewee sunu kàddu day daldi am nu mu mel day am nu mu mel ndax nee na dafa gëj a dégg suñu kàddu ñu waxtaan waaye seen ndigal ñun amuñu luñ ci teg ndax wax naa leen ko ci cantuk bàyyi seedi caw ba waaye ñu doon utalu fit ba mu faf dem wuy ji boroomam loolu nag lay bañ mu dal ma sama diggante ak ñoom ñu koy nuyu bu baax di ko sargal di ko wax ne géew bii géewam la moo ko moom géew bii géewam la moo